biir loolu Bougane Gueye Dany annoncé na que que mom ci bopam mo nek ci ginnaaw parce que dafa am ay liste yo xamantene mo len leen parrainé mais amul fit def ko ci bir lolu Régis dama bëgg ñu jox ma ben vidéo ñu dellu si waat ñu xol la justice sénégalaise ma leen di wax nak cette justice là Barthélemy Diaz sera le candidat de Yewi Askan Wi bu soobé yàlla kenn mënu ko téré nek candidat et nous gagnerons Dakar inshallah allah kenn mënu ko téré gannaaw yalla li ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal 10 ans nga yor dossier di lambar lambari 10 ans 10 ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé le lendemain nga naan da nga koy convoqué moi si j'étais Barthélemy du ma uyu élection dañu war a bàyyi ñi war compétir compétir le peuple tànn fenn foo xañ ci loo xam ne tegul ci yoon nga xañ xañe fa ab liste élection foofu amu fa da ngaa créer les conditions d'une vie tey Bougane kii di wax ni parti Passef, uh-huh. di tête de liste parti euh, liste passef uh-huh. mo en 2022 uh-huh. défendre li ci ko ci dossier le xamanteni par rapport ak candidature tay ñi ne mom mo est ce que yanu na xam nga li avant élection yi la mais amna benen après élection waaw bi mu wax naan Barth moytul Macky Sall amul dara lu mu bëgg lu dul nangu mairie bi. Mhm. boobu Barth falu na ba pare. Mhm. moom moo dépendre défendre lii. Mhm. beneen bi ci topp. moom euh, le premier ministre Ousmane Sonko di parti bu nekk jiite parti Pastef. moom moo taxawoon ne dossier bii nii. mënul comprendre dossier bii lu gaay utilisé politiquement mhm. chaque veille d'élection ñu mhm. utiliser dossier politiquement défendre dossier bi un et ongles mhm. ne kat Macky Sall day utiliser dossier pour éliminer Barthélémy Diaz. légui tay au pouvoir nous tax tey ñu doon xaar mom mu défendre dossier ah. parce que dossier Ndiaga Diouf bi ñom ils ont défendu ce dossier né dossier bi c'est purement politique ba dem na sax ba wax ci néna mom comprendre dossier bo xam 12 ans wala 10 ans diko diko diko ping pong di dem ak léegi ko doon défendre loolu mom moy tay euh, chef du gouvernement. chef du gouvernement mom moy patron wu ministre de la justice. ministre de la justice moy patron wu procureur. et c'est loolu mom jaratul sax ñu dem te ñew lenn rek moo ci am ragal mu bok mm-hmm. wala ñu gis ni tay ab bokam am lu muy peser parce que xam lu tax am lu muy peser mm-hmm. c'est le maire. bo xamanteni dañ ko fal en 2022 ñu falandoo ak ay moromam mm-hmm. parce que Ousmane Sonko c'est un ancien maire de Ziguinchor mais Ziguinchor mais Barthélemy Diaz kese moo am moi osé ñëw taxaw def un bilan à mi-parcours. 730 jours 730 réalisations. réalisation moom rek mo taxaw wané ko. Mhm. affaire bi commencé basculer nak. Mhm. Euh, Tange dafa commencé basculer dé parce que sénégalais yu baré bari dañoo commencé yéw xam nga ci lan. Mhm. on nous avait promis un projet bo xamante qui est brisé. mais yéen ngeen gungé projet bi.

Mhm. yow un premier ministre ñu far la pour nga cooki ak dundinu askan bi. Mhm. nga cooki ak say réalisation yow nga ne da ngay jóg pour cooki cooki pour kan koy cookil yow dañu laa dénk réew mi pour nga defar. léegi nag voilà beneen bi ci topp mooy beneen beneen doute bi mooy bi mu demee ca grand théâtre mhm. waxoon ni c'est le chef de parti mooy ñëw far yàlla premier ministre ba fekk ko fa. mu ne projet bi. dina génn septembre bii. Uh-huh. ba Macky sax toog na fi moom deux ans. la defar projet plan six mois dina indi euh, projet bi septembre bii. la dix octobre bi ci mi septembre bi sax dañ ko projet bi na na depuis le 26 septembre mais le sept lañ koy projeté. d' accord tey on n'a pas vu de projet la fa projet le gars yi gisatul seen bopp parce que tey la courant bi gën a cher. waaw diisal woyofal bi diis na gan. courant yi man facture deux cent soixante et un lañ ma indil facture courant. ma ni la euh, euh, jën bi ñu doon wax ni dañ doon dañ ko doon filmer ci géej gi ana jën ya. Ah, jën tey la gën a cher jën moom dañ koy maye dañu gis kuñ ko jaay. yàpp tey la gën a cher. demal ci marché bi suñu man sama soxna fan yi mu ngi may bëgg a ak dépense. ndax ndax légumes yu cher ak lépp lu cher kon ana ana deux mois yooyu ñu waxoon dañuy wàññi ci wàññi dund ana euh, kii appel à candidature bu ñu waxoon

tête de liste sàmm sa kàddu bi di Barthélémy Dias loolu kese la. d' accord léegi-léegi yow yako ko ñun fi lepp lu ñuy wax rek dañuy tek preuve comme saa wolof sa yoo waxee mu laaj vidéo registre des vidéos bi disponible na ngeen jox ñuko ko par rapport. yégal sénégalais yépp nak di araftu ne leen Macky Sall mi ngi ci tànku bëgg nangu ay mandat Barthélémy Dias te xam ngeen ni duñ ko nangu ma nga ci tànku ak ni mi instrumentaliser toujours la justice bëgg nangu mandat Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar et en tant que député à l'Assemblée nationale Je nga askan je suis un ba ne Barthélémy doy ma ñu ne ko pas assassin la mu la bëgg la pour ma jox ko nous ñu Nous nous nous pour ñu député de mu Assemblée nationale kooku kenn warul am sañ-sañu ñëw tey ne danga koy nangu loolu ci violence yi. say bi déggee moom C'est parce que de premier ministre mi doon bañ instrumentalisé justice pour invalider candidature lii bi mu koy wax pour médias, la condamnation a été définitive et pourtant, il et pourtant dafa concédé poste en tant que député à l'Assemblée nationale ba keroog ñu koy tas mu concédé lii di ci Dakar ba est ce que as une incohérence de ko recours boo xamante ni war dafa war a invalider liste kii nga xamante ni candidature u Barthélémy Dias vu que aussi suñu procédure pénale ak suñu code pénal dafa am lu mu wax mhm. crime bi c'était en 2011 mhm. Barth toppee ñu ko crime délit lañ ko toppee mhm. léegi ci délit boobu même su dee condamné nañ ko tëddoon na am euh, six mois d'emprisonnement ba pare léegi am na dix ans est-ce que loolu même tay casier judiciaire ou voiture euh, Barthélémy Dias nekkul loo le de vierge on est en 2024 oui ba paré, Tange ma tegal la ci après euh, bi def ki bi amé, nu décision bi définitive bi mu amé Barth à voter wa présidentiel yi passé Barth voter na ba guen ba def déclaration. voter na présidentiel wa donc Barth éligible. éligible parce que biñu né dañu attaquer li nga xamanténi manam moy mooy euh, recours liste Pastef bi. merci dam leen ne mais ku voté le 24 mars. waay Ziguinchor waaw donc il est éligible. il est éligible. Barthélémy Diaz a voté fi ci Bamba donc euh, kon la kon kon le débat est clos. et clos vidéo bi dina ko génne ba paré mhm. xam nga la moo la waral ni la moo lay wan ni dossier bi wala sax euh, bulletin bi nga xamante ni ci lañu def Barthélemy Diaz muy sàmm sa kàddu mhm. dafa yëngal poulailler de la république bi mhm. xam xam la moo koy waral démb bi ñu bi soi-disant décision boobu génnee bi Walf joxe mhm. le DG du port dafa doon jubilé Waly Diouf Bodian Waly Diouf Bodian bind ci page am y aura pas de jazz à l'Assemblée nationale waaw waaw ça ça j'ai vu ça sur les réseaux après sax bi mu amee benn tension nii si la ko si la ko euh, retiré fekk gars yi capturé nañ ko bu yàgg après gars yi si lañ ne y aura pas de jacuzzi voilà à l'Assemblée nationale un dirigeant un dirigeant bu toll ni Waly Diouf Badian yow ñu jox la port port am ay ay ngay ci ci élimination Diaz non c'est c'est écœurant donc man man après dama dem ba ci euh, ci parce que ay dirigeant ak fi réew mi toll fi instant bi poche yi nañ kenn amatul dara ñëpp fu Sénégal parce que le premier ministre DPG. tu vois des dirigeants yu une élimination de d'un euh, d'un opposant bi ci on avait vu avant avant-hier le le ministre des transports jamono ji transport bi metti mhm. tali bi ñi ñaa ngi Et yow nga war a am leneen loo tal nga génn di xas ay opposants naan leen ay cœur brisé mais c'est c'est c'est c'est c'est normal que nos cœurs sont sont brisés xam parce qu'il y a un projet brisé. mais ah, est-ce que tey maanaam slogan bi ngeen utilisé woon ak Yewwi Askan bi campagne bi benn slogan ngeen utilisé woon maanaam attaqué régime bi fi nekkoon. Ah. alors que tey ñoom ñoo nekk ci régime bi te amuñu bilan bu ñu présenté Sénégal est-ce que loolu tey poussé wu leen pour jéem di attaqué. dina am ay kër non Tange attends euh, gis nga Bart. teel naa génn araftu. wax ak sax boobu ñu ko invité ci plateau wu Maïmouna Ndour Faye seen consœur boobu. 7TV mu taxaw. waa euh, gars yi bi ko Maimouna Ndour euh, laajee ne ko lu tax ngeen génn yeewu askan bi mu ne ñoom dañoo dem ba constaté ni mhm. yeewu askan bi parti gunge la wala coalition gunge la benn nit rek lay jàppale parce que yeewu askan bi kenn rek moo fa nekkoon ñu doon jàppale muy Ousmane Sonko ñoom nag bu ñu demee ba gis ni loolu moo fa am ñuy jéem a xeex Khalifa Sall ñoom ñu retiré wu parce que kenn du leen tënk tamit kon du ñoom du ñu far ci parti gunge dama ne la ñun nous, suñu les dafa suñu euh, dafa constant. Mhm. dañ ci parce que ñun lenn ñoruñu. Sénégal sommes les bi Nous sommes ba gis ni sommes il ngi mhm. Nous c'est que gars ñoo bëgg manipulation Nous sommes ba gis ni ñaa ngi Nous sommes dee yi Nous na yi Nous di ñàkk seen Nous politique. donc nous ne kat bal à terre te xam Nous sommes la ko Nous mhm. euh, sommes meetingu ACAPES. Nous Ousmane Sonko ngi Nous sommes en Khalifa Sall ngi toog ci sommes ñëpp nous sommes mu Macky Sall on la main.

waaw kon nag tey bu ñuy bu ñuy politique yi nga politique xel la Tange am na ay dëkk yoo xamante ni guerre lañ doon def. Mhm. bañante ci ay ni mais dañoo dem ba waxtaan jiboo ba ba sax réew mi waxtaan moo defar. ah ci waxtaan la jeexee. ci waxtaan la de kon Diaz avait raison. sax la ko wax ma limal ni la ni la ministre bu taxaw transport bi metti nga war nga taxaw les brisés. mais c'est normal que nos cœurs sont brisés parce que on n'a pas un on a vu un projet brisé qu'on a défendu 10 ans. après France daal di gisuñu dara beneen bi ci topp ma di mbir rek maa ngi dégg Diop Fall fan yële muy wax naan benn waay sa liggéey sa joxe dafa lan hmm. waaye ñii dañ leen yónni yàkkamte leen te seen liggéey dafa lan lool. d'accord waaw.